état. fu ñu toll ju ju ju joxe na léegi euh, àtte ci li nga xamante ni moom mooy dossier suite aussi jàppale ni kon Ousmane Sonko euh, juge bi nee na nañ ko tëj ñaari ak kaso yi nga xamante ni dana ko tëdd ak moom ak Ndeye Khady Ndiaye également ñaari at kaso dana ko tëdd euh, ci fee li nga xamante ni moom mooy corruption jeunesse daal daf ko disqualifié fee lu jëm ci wàllu viol ak menace de mort kon loolu mooy àtte wi tey ci bi Euh, ci tribunal bu Ndakaaru nga xamante ni nag àttekat euh, bi euh, wax na li nga xamante ni moom la jàpp ni justement moom moo tukkee ci li nga xamante ni moom mooy débat yi ñu amaloon keroog jàppale ni nag fi nga xamante ni moom moo di enceinte bi gis nañ ñenn ñi nga xamante ni surprise générale farandoo moom njiitalu Pastef ñu fa jot daanu xam ak yu mel noonu waaye jàppale ni daal loolu moo tukkee ci euh, li nga xamante ni moom mooy délibéré bi euh, attekat bi nag li nga xamante ni moom la teg ci atte wi mooy euh, six cent mille francs wàllum amende bi nga xamante ni danañ ko fay moom Adji Sarr mi nga xamante ni teew na fi nag ci tribunal Dakar ak ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Khady Ndiaye mi moomoon salon suite bouti kon mu ngi noonu Abdoulaye loolu moo fi tukkee ni ki tey ñu ngi waaj jël ay réaction avocat ñi nga xamante ni ñoom ñooy avocat yu Ndeye Khady Ndiaye Sonko ak moom Adji Sarr jàppal ni nag ñoom avocat Ndeye Khady Ndiaye ak Ousmane Sonko euh, bi àttekat wi ñëwee dañu dugal ñaari demande de rabat yoo xamante ni dañu sàkk woon ci àttekat wi euh, mu daal di euh, dàq li nga xamante ni moom mooy délibéré bi ñu mën a tàmbaliwaat procédure bi ndax jàpp nañ ni bu fekkente ni avocat yu Ndeye Khady Ndiaye la ñoom dañu sukkandiku ci article deux cent soixante deux bu code de procédure pénale ndax jàpp nañ ni attekat yi dafa ko atte te ay avocaam teewuñu euh, te loolu vice de procédure la euh, ndax euh, juge bi plutôt dafa waroon bàyyi ba avocat yi nga xamante ni moom mooy Ndeye Khady Ndiaye teew ndax Ndeye Khady mënul atte boppam mënul plutôt défendre boppam ci kanamu àttekat yi ba tax na nag demande boobu ñu dugal ko demande bi nga xamante ni avocat yi Sonko yi Ousmane Sonko dugal nañ ko jëm na ci li nga xamante ni moom mooy convocation buñ ko notifié gul wala boog nuñ ko notifié demee wut ni mu waroon demee. Euh, moom procureur nag bi mu jëlee moom mi teewal ministère publique bi mu jëlee kàddu dafa ne yooyu weesu nañ ko ndax nekk na loo xamante ni euh, vraiment euh, dugaloon nañ ko ci débat bi audience sociale mardi passé ndax li nga xamante ni moom moo di ci wàllu teewaayu avocat bi avocat yu moom day Khady Ndiaye ñoom ñoo jël seen dogalu bopp ne dañuy gën ci tribunal bi dem dem seen yoon juge bi daal di koy defal li nga xamante ni moom moo di euh, euh, commettre d'office avocat bi mu ko joxee avocat avocat boobu tamit dafa jël de façon délibérée décision am euh, bàyyi ki nga xamante ni Ndeye Khady Ndiaye moom kese ci salle bi mu atteel mu mu plaideel boppam kon mu nekk ay yëf yoo xamante ni kon tax na ba moom procureur jàpp na ni wàll woowu moom weesu nañ ko pour lu jëm nag ci li nga xamante ni moom moo di wàllu moom